mbokki ak xarit internet yi ñu ñuy seetaan ci Thiès Info donc ñëw ñu fii nag tey gis ngeen reportage bi ñu leen amal fii muy émission boo xamante ni da ngeen ko ñëw fekkee seetaan ko ñu ànd ceeg monsieur le maire de la ville de Thiès donc muy innovation bu rëy bu mu andi eh, mun naa ne sax c'est une grande première à travers le pays muy innovation bu rëy muy lëkkale chaîne rajo yu Thiès yëpp ñëpp àndandoo synchronisé du lundi au jeudi. diggante fukki waxtu benn maanaam 11h ba 12h mu am initiative bu rafet boobu waaye jël tous les partenaires yi nga xamante ni dañoo bokk ci xeex corona bi ñëpp ñu muy liggéeyal mu boole leen def leen ci ay potentiel invité ñuy dem lëkkale chaîne yi waaye di waxtaan ak askan wi di leen junju di leen di leen won fan yoon la ñuy jaar di leen won nan la ñuy def ba respecter les règles barrières ak lépp lu jëm ci xeexu corona bi ak taxawaay bi mu ci am. alors tey jii nag ñu ñëkk fii Thiès FM RTS àndandoo lëkkaloo ak Corkat Sud FM Zik FM Best FM Dunia ak Walf ak bépp rajo bu nekk Thiès loolu nag mu nekk lu rafet Xadiyum yow euh, initiative maire Talla Sylla ñu koy dund depuis boobu ba léegi yow ban jàngat nga ci am ni rajo yëpp di lëkkaloo 11h 12h lundi ba jeudi àndandoo defandoo benn émission ci xeex corona bi. Euh, Papis Diallo ma fay la nuyu euh, monsieur le maire de la ville de Thiès li ma koy wax rek suñu maire nga xam ne il est toujours très très surprenant te initiative bi ci surprise yi nga xam ne indil nañu ko ci waxtu yi nga xam ne mbas mi di coronavirus dafa lëmbe àdduna euh, moo ko teg ndax yaakaar naa ni euh, de 11h à midi boo jàppee l'ensemble des radios de Thiès benn voix ngeen di déglu. muy voie bi nga xam ne moo ngi tukkee ci municipalité de la ville muy une bonne initiative et sa permet de capter l'audimat des Thiessois en benn heure benn waxtu Thiessois yi dégg benn kàddu loolu monsieur le maire si la moo ko moo ko def te vraiment euh, par ma voix ñoo ngi ko ci euh, sant di ko gërëm di ko ne am na impact nag parce que man mi nga xam ne ñaaree ma jox ci animé dañ may ne mais xadi ana monsieur le maire ma ne ne fan ngeen ko déggee ñii ne ma gis naa ko fii ñii ne ma gis naa ko fii ça veut dire que les gens écoutent et les gens regardent loolu rek euh, c'est très très important et quand on écoute on regarde am na loo xam ne jëlee nañ ko ci muy loo xam ne tamit euh, c'est une belle initiative même bu mbas mi jeexee tamit lu xewati Thiès nañ koy doxalee nii ndax rafet na. waaw donc euh, monsieur le maire bu ñuy wax ci loolu muy vision vision boo am ak également benn plan de communication bu teg ci xeex corona bi mu nekk vraiment quelque chose d'assez original. yow la ñu bàyyi nga fram fàcceel ñu ko. waaw santaane bi ñu jot moo doon fexe ba am une communication de masse pertinante et rassurante nga xam ne dina am solo méngoog li mbir mi laaj waaye dina dal xel tamit loola ba mu waree am euh, dama leen a woo journaliste yi nekk Thiès euh, ñu waxtaan waxtaan pour seet guerre bii ñu nekk. nan lañ ci mën a bennoowee ba mën a xeex mbas mi ci biir waxtaan yooyu ca la juddoo ne li gën moo ñu def lu daawul am mooy boole rajo yépp nga xam ne suñu dee wax ñëpp a ciy jot maanaam waxtu woowu bu jotee euh, rajo ku taal sa rajo moom di nga dégg li ñuy wax xanaa nga bañ rajo loolu nag Euh, gis nañu mu am njariñ ndax comme dañ ne il faut sensibiliser wax ak nit ñi jottali leen li nga xam ne mooy xibaar yi waaye jottali leen tamit ndigal yi waaye jottali leen tere yi loolu saa au niveau national ministère bi yore santé waxee ba noppi seetlu nga ni ci cadre émission bi dañ koy jottali waat pour ñi nga xam ne jotuñu woon xibaar yële loolu nag gis nañu boobaak léegi ñu koy def mu ëpp weer ba ñu dëgmal beneen ah gis nañ ne am na njariñ fekk ñu ngi am kàttan ñu koy def te jàngat nañu ne suñu génnee it ci mbirum euh, mbas mi yàlla nañ ci gaaw a génn suñ ci génnee fas nañu yéene ci yu bëri ñuy def ñuy wéyal loolu ndax nag kenn du changer une méthode ki gagne ren ji euh, audience publique bi may def juróom benn weer yu nekk nga xam ne 30 octobre ak 30 avril la bi 30 avril day ñëw def ñu ci fekk te dajale nit ñi mënta ne te comme objectif bi c'est de rendre compte aux Thiessois a travers certes public bi daan toog ak jot ay questions ñu def ko ci cadre émission boo xam ne nit ñi daañ ko toog seen biir kër dégg ko dajaloo du am te journalistes yi ko teewee ñoom ci seen bopp laaj ci turu ñëpp je pense que jàngat boobu am na lu ñu won te bu ma sañoon aussi Sénégal yëpp ñu koy defee noonu mm-hmm. donc euh, monsieur le maire Talla Sylla donc fii si diwaanu Thiès ñu gis ni nag loolu dafa exemplaire waaye tamit lu leen loo xamante ne exemplaire na tamit tey ñu fekk euh, waa Thiès Info ñu fekk ñu si mu nekk si benn pàcc émission bi muy li ñu doon waxtaanee li ñu waxtaanee par exemple tey si émission boo ko doon tënk tey si Thiès FM euh, tey li nga waxtaanee si Thiès FM sur l' ensemble du réseau de réseaux synchronisés de rajo de Thiès tey lan la woon. waaw toujours rek ne ci waxtaan nit ñi. dalalaat xel yi euh, soññaat fàttaliwaat ne mbas mi mi ngi fi ndax bisu tey ñu am téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñaar yoo xam ne mbir mi dal na leen nii euh, te juróom-ñett ñoo ci cas communautaire waaye ñeneen ñëpp contact gu ñum dal day wone ni kon mbir mi day am na te day wàlle boo jegee nit ci yenn anam yi mu dal la kon émission bi fàttali nañ ci mesure barrière yi waaye ci émission bi waxtaanee waat nañ fi it euh, xalaat ak initiative yi nga xam ne ba ñu tàmbaleeg léegi ñi ngi leen di teg ngir xeex ak moom jàkkaarloog moom euh, surtout nag lu jëm si waañu daara yi ak nañu tàmbalee ci ñaari junni taalibe par bis ba toll ci fukki junni ak juróom ndax dañ cee boole ñenn ñi nga xam dañoo wër Cees jege Cees ba bu ñuy yalwaan biir Cees la ñuy yalwaane rafetlu dogalu euh, président bi ne ñu xale ne ci mbedd mi waaye xale yi ne ci mbedd mi ak fu ñu mënti jógee mu ñu jóge ci seen kër mu ñu jóge ci daara mu ñu jóge feneen xale warul ne ci mbedd mi parce que dañ ko war a aar ndax ñi dul xale sax nee nañ leen bu ngeen amul farata bu leen dem ci mbedd mi te bu ngeen dem ci mbedd mi na ngeen jël matukaay yi yooyu waxtaane nañ ko waaye waxtaane nañu it li ñuy xaar ci président de la république ci contexte particulier bii ñu nekk euh, mu war a jël kàddu tey jii incha allah Euh, ñu sàkk ci moom euh, mu gën a dalal xelu nit ñi ndax wàllam la moo wara a tëddee njaaxaanaay euh, yi mu noté ci application wu mesures yenn yi nga xam ne war nañ leen mën a réaménager ci anam boo xam ne du tee mu am efficacité ñu jëm ca loola waaye it fexe ba nga xam ne lépp loo xam ne mën na tax yenn décision yi mu jëloon surtout ci wàllu dund bi ñu gën a revoir nan lañ koy defee ba du nekk njariñ ci benn kor waa côté waaye nekk tamit loraange ca beneen boor. donc euh, monsieur le maire euh, comme nañ ko waxoon rek Thiès Thiès info fa ñëw rek. Euh, pour tënk un tout petit peu li nga xamante ni moom la ñu nekk di moom nga nekk di liggéey ak sa équipe euh, donc ak ñuy ànd ak yow ñoom dana ba ñoom Latir ak sa équipe bi yëpp nga àndal ñoom baaxum ak ñoom ñi nga àndal ak sa également ñi nga xam ne ñoo yore sa communication bu fu mu toll ni daal encore une nouvelle fois lii lañ leen doon andil wan leen ni que euh, le fait marquant moom mooy que li nga lëkkale rajo yëpp monsieur le maire daal innovation xanaa yow yaay monsieur le maire boo xamante ne innovation rek. waaw dañuy sant yàlla rek li ñu war daal mooy euh, bu dara xewee ñu seet lu ñu yaakaar ne suñ ko defee mu baax ñu def ko sans benn forme de complexe nag euh, euh, lëkkale mooy baat bi gën a am solo ci jamono bi mooy benn ndax tey suñu bureau de ville am na benn vraiment te politique boolewu leen ndax boo ku doon seet kenn ku nekk fa mu bokk. mais am nañu bennoo biir conseil bi am nañu benno c'est ça la vérité ba maanaam daanaka li ëpp signe nañu pour ne autoriser nañ maire lépp lu nécessaire ci combat bi mu def ko loolu aussi benno la fexe aussi ba nga xam ne ci biir société wu Thiès bi waa société civile beeg ñëpp ñu dajale leen rajo yi tamit benno vraiment waaw sit yi noonu ñëpp impliqué ku ci nekk dugal ci sa sa loxo mais je pense que noonu aussi euh, su fekkee ne wéyale nañ ko noonu danañ ci am résultat parce que ñun ñoo bokk mbir mi loo xam ne yow ni mu lay songe nenn na euh, li muy def ñëpp la koy def kon fii la Benno gën a amee sens te ñu ngi koy def. te loolu bokk na si jàngat gi ñu war a jàngat ci feebar bi. waaw waaw parce que loolu nee naa mbir mi feebar la ci jëmm yi laal na société bi aussi. waaye mel na ni yëngalaat na société bi ba nga xam ne nit ñaa ngi génnewaat yeneen xeetu saafara solidarité ba doon commencé di wàññeeku mi ngi ñëwaat waaw discipline bi noonu kon am na quand saafara bu mu dugal ci société bi. jërëjëf euh, monsieur le maire euh, Khadioum yow tam jërëjëf donc euh, Thiès Info ñëwoon fekk ñu fii nag ci li nga xam ne mooy série d'émission synchronisée Euh, yoo xam ne c'est l'initiative de monsieur Talla c'est la maire de la ville de Thiès lépp dans le cadre de la lutte contre le coronavirus mu def ko des émissions de sensibilisation qui passent sur toutes les chaînes de Thiès du lundi au jeudi entre 11h et 12h une belle trouvaille une belle initiative mais également euh, nous rappeler également qu'actuellement c'est la discipline et la solidarité qui peuvent nous aider à vaincre euh, cette maladie vivement euh, donc que le coronavirus abat le Sénégal Merci à Monsieur le maire Talla Sylla pour son engagement, sa détermination, sa volonté, son abnégation, son courage, mais surtout également sa vision ak taxawaayam. Chacun d'entre nous est un soldat dans cette guerre que nous menons contre le coronavirus. Ne laissons pas la vie ni nos vies au coronavirus. Merci et bonsoir.